soxna Maane Cuun day moom fii ci sama fii ci Madinatu Salaam waaw waaw di a baax a baax a baax di sant Sëriñ Salim Mbàkke bu wér a wér a wér a wér jërëjëfaat Sëriñ Salim jërëjëfaat Sëriñ waaw sant naa Sëriñ Béthio bu baax a baax a baax waaw tey da ñëw fii ci sama kër waaw e, doon fi def reportage wax dëgg yàlla gàmm gi neex na di sant soxna Aïda Saliou Diouf jëmmi Serigne Béthio bi wax dëgg yàlla sant nañ man day sant naa ko te rëccuwuma lu ma sama wujju bi boole wala moom waaw man de man de nag ci ndigalam ci ndigalul Serigne Béthio laa nekk fas yéene di ci nekk ba faaw waaw damaa ni ci ndigalam ndigalam lii maa ngi ñaan dara bañ koo pakk may jëfe ndigalam ba faaw rek di santaat soxna si lam daan jëfanteeg man rek defar na ko yëpp daan def ci màggal bi di ko def ci gàmmu bi di ko def ci 17 avril bi di ko def bu dara xewul bu saxal la ko tey jii la raw maa ngi fii ci sama kër ak samay gan ak samay bokk te dara maatu macha allah santaat naa seen béy bu wér. soxna Aida indil na ma ay nag. soxna Aida indil na ma ay xar. soxna Aida indil na ma condiment. kon nag bu ma ko dee lim saaku soble yaa ci ceeb baa ci diwlin yaa ngi ci keesu laaj yaa ci moom daal poobar kaani bu sew vinaigre ba ci eau de javel madaar bàyyiwul dara bu xeeti fruit yi dikkee indi na poire indi na beñe indi na banaan indi na raisin indi na ndox indi na canette mbooleem luy fruit indi na ko fii bàyyi dara barke Serigne Salim dara màgg fi matal na lépp ma di ko ñaanal nag mu yàgg fi loolu te yàlla na fi sax jërëjëf